dikkati na Père Ousa ne woon ki fi nekkoon président ku la réew mi neex na daf lay nax turbine yéen kaay naan kon sàll ngaari lam tooro burgede yow mi ñu yàlla booleel nga jiite ñu kaay jël siis toog ma xamal la tey jii senegal ku ne la neex na deey daf lay nax la soleil naan kon monte sàll dugal na lu ëpp ñeen fukki milliards daal di koy tabaxee ay kërug diine turbine yéen kaay naan kon ñetti doomu penda naar yi ndekki añ reer amatul ci réew mi moom kay da nga naajee yeewu of jël fayal laaxu waaye daal turbine yéen kaay naan man kër ci boppam ci na fa tàkkatul le soleil mel ni ku naan koon ee eh, déglu ma rek président Macky Sall juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti mètre carré ci wàlluk surface daal dina koy tabax ci réew mi ay fukki fukki ci jumaa moom président Macky Sall defar na leen defar nay sanctuaire ki église ak résidence moom Sall moderniser na ëttu këru diine yi turbine yéen kaay naan koon déglu ma rek président ma Sall buñ la waxee yaa fi def lii wax la réew mi neex na dañu lay nax ñetti doomu pend réew mi yéen kaay bi de média bi naan kon tey ma xamal la wér gu yaram fees fajoo amul ci réew réewum Sénégal danteek moom tëj nañ ko fayal laaxu gars yi buruxloo ci li nga xam ne moo des ci hôpitaux yi mani la boo demee ba ñu facturé la say tànk faw mu damm nit ñaa ngi faatu ci réew mii ñu ne ndax amuñu lu ñu fajoo nit ñaa ngi faatu ndax amuñu bërëb bu ñu fajoo ndax hôpitaux yi dafa fees réew mi ku ne la neex na président Macky Sall daf lay nax waxtu woowu mani la ñàkkum ndox moo xam ne baax na nekkub jafe-jafe ci ñenn ñoo xam ne ay sénégalais la tribune naan kon Sall bankal say baax baaraam ma xamal la ñett yii manger boire se soigner amul ci réew mi bari na ci kër yoo xam ne fi mu ne ci tàkkatul loolee nag sax du ñàkk saf loxo sal wala it ñàkk jot waaye lu ñu ko toggee la ñu amul réew mee pëcc xoo le quotidien le quotidien naan kon moo tax it accord yi nga xam ne def nañ ko ci napp gi gaa yaa nga naan président Macky Sall na accord yi dakk waaye Sall yërëmal sab askan yéen kaay ma jëmbal jaañ bi naan booba allié yu Ousmane Sonko yi ña ngay weñ loxol président Macky Sall naan kon nañu riigaat turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi LACOS ak M24 théâtre di sàkku ci président Macky mu fexe ba dogal yi nga xam ni bàyyeekoo na ci yoon ñu respecté ko fii ci réewum Sénégal tribune yéen kaay naan kon cim xam ga sax dafa mel ni nguur gi nag dafay tuutal yoon ci réewum Sénégal ndax nag bu yoon dogalee ne lii nañ ko def daar daar mu mel ni nguur gi day weñ loxol yoon ba loole ñu am jafe-jafe jëfee ko ci réew mi loolee nag dees na ko seetaat 24 heures yéen kaay naan man en tout cas yoonu Ousmane Sonko jëm ci élection présidentielle yi daanaka xaaxaam dong la ñaari weer moo des ci la wax ji ci langu politique fi mu ne Ousmane laaj ba mooy dana bokk ci l'élection présidentielle am déet en tout cas opposition bi moom saa bu ñu xëyee moom président Macky Sall di leen wan sikundik sikundik ji ne jommal na la màggetum ji ne lu mu màgget màgget deseb ngela ju boo xam ne jommal na ne moom président Macky Sall akum njabootam daal di suux gaay ci dex goo xam ne boor boo fii jëm ndekete politique nga fay daal di dajeel sénégalais yi nag fi mu ne xamuñu organisation présidentielle bi nu muy demee ñaari weer des ci élection présidentielle yi ma ne la ba nii kenn xamul kan mooy bokk ak kudul bokk F24 naan ak lu mën a am Ousmane moom na bokk ndax yoon ci boppam moo riigaat turam yi ci liste électorale yi kon nag yoon la fi mu ne moom Sonko turam wa nekkaat fa waaye nañu daal di koy jébbal ay fiche de parrainage balaa datu dépôt yi di jeex moom Ousmane Sonko nag mën a déposer am libération yéen kaay naan maan en tout cas Ayib Daffé tàyyiwul sonnul niki démb daal dinay dem ci direction générale des élections moom Ayib Daffé waa DG dañoo mujj ne ko laggal daal di dem ca daaf ndax ñoom ñoo ñee ñoo war a riigaat tur Ousmane Sonko ci liste ko defee ba noppi nga ñëw seet si waat nu Sud Quotidien naan kon ku wax lii wax la ca mi ngi onkee fu ne ñu koy teg loo xam ne métti na Paate Ndiaye ancien directeur bu bureau organisation ak méthode daal dina bu dee fees jëlee ay dogal moom politique ba moo cay teg loxo wax na muy doxee lii nag lii rek lay joxe ay dogal yoo xam ni dee su ko appliqué ci réew mi wala it balaa ñu koy appliqué dina métti wala bés bi la jour naan man daanaka saaga Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko mburu foofu ko fariñ na corruption à la jeunesse sagale Ousmane Sonko ba kupp bopp amul ci moom nii nag la Barthélémy Diaz nar a muccee ci foqar ci meereem Walf Quotidien naan kon en tout cas Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko Karim Meïssa Wade moom sen candidature ba ngi ci xottu gerte L'Enquête Quotidien naan man Khalifa Babacar Sall ma ngay wax moom naan jegeew ma nguur su ma ko bëggoon def naa ko Dakar Times naan man boobu doomu Abdoulaye Sall yéene kaay bi naan ñi ngay laam-laamee ñëwam ak du ñëw de waaye bu dikkee ci réew mi ñu xam ni lépp dëgg la l'info naan koon Mohamed Boun Abdallah Dionne dëggal na boppam def boppamub candidat yor yor naan koon Bougane Gueye Dany it candidat la moom jiital gëm sa bopp daal di dara fëgg dënn gëm sama bopp ngir tekki gi mën a am ci réewum Sénégal l'info yéene kaay naan kon ku liir téeréem gii da nga xam ni dëgg-dëgg ak yaakaar mënees naa juddu ci réewum senegal ci ne Bougane Gueye Dany mënees nañoo joyanti génneenu ci coono génneenu ci lëndëm tàbbal ci leer fa Quotidien naan koon Anta Babacar Ngom it candidat la Anta daal dina industrialisation da ngeen ko doyal sëkk bés bu ngeen ma falee xam leen ni am nag tournée ci diiwaanu Fuuta googe waaye daanaka Fuuta gépp ànd ci projet moom Anta Babacar Ngom naan ko doxalal ñu ngi sa ginnaaw L'Observateur naan kon booba gouvernement gu Sénégal ay diggéem ci janook askan wi wax leen li nga xam ne moo am ci réew mi sax munu ko yéen kaay bi naan maan ña nga xam ne ñoo yor communication gouvernement bi da ñuy daal di rasu di daw res Abdou Karim Fafana porte parole bu gouvernement ma ngay expliqué yéen Pape Futur Média bi naan kon dara ña nga xam ne ñoo war a sàllal ñu ko wane président ki Sall ay réalisation ñii ci boppam ñoo daal di lëndëmal xel yi ndax saa bu ñu leen soxla ngir ñu expliquer ci conférence de presse wala it janoog député fa président Macky Sall jëlee réew meeg fa mu ko yóbbu waaye tam xamal leen ak yéene président ki Sall ci Sénégal dañuy daw xàccet kenn du leen gisati su président Macky Sall jëfeet ña ko war a wane wane ñu ko mooy ña nga xam ne ñoo yor communication yore ay kàddoom waxaluñ la sàll de say jëf ci réew mi ci boppam dañu koo waxalula la ko vox populi ni ko laataa loolu ma xamal la sàll ne la ñi nga xam ne ñooy an mbalit mi ci réewum Sénégal ñi ngi ci gréew fukki milliards ngeen leen dig joxoo leen yéeni bi naan man tey ji état bi nee na dina goxi juróom-ñetti milliards ci wàllu table négociation yi syndicat yi di CNTS UNSAS CNTS FC CSA ak FGTSB ñii ñooy toog ci taabul yu négociation yi tribune yéeni kaay naan man boobu ñi ngi sargal ñi nga xam ne ñoo jëf ci réew mi jàmbaar awards yi 2023 yi lu toll ci ñaar fukk ñaar ci ay lauréat ñu daal di koy jébbale diggante président Macky Sall ak El Hadj Ndiaye waaye tam Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre de la sante DG bu ko SAPCO Souleymane Ndiaye DG ONFP Mounirou Ly fondateur C50 PN Abdoulaye Sylla ak Anta Babacar Ngom jébbal nañ leen raaya turbine naan maan boobu la fu nu dëxëñ ay gaz moo daal di kalaata ca Guinée fukk ak ñetti bakkan rot ca téeméer ak juróom-ñeent fukk am tey gaañu gaañu président Macky Sall daal di yebal ca Guinée goo gee ndimbal ngirub taxaw nu mu gën a gaawee turbine sport naan maan gannaaw ndamam li ci jéen kay re Zarko naan diggante Lac de Guiers 2 ak Balla Gaye ma ca am sama xel mën naa dal yéen kaayub des média bi naan maan laataa ngay dem juróom-ñetti kilogramme yu cocaïne moom la ñu daal di teg loxo OCRTIS daal di tegit loxo ñeent ci ay dealer bokk na ci ñoom ñaar ñoo xam ne bàyyeekoowun Sénégal Walf Quotidien naan maan Podor amut jàng la ko waral moom moo di benn ndongo moo jël chaîne yi nga xam ne moo nekk ci welo di ko dóor maître wa di ko dóor maître ba di ko dóor maître ba abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci mi ak ci bitim réew